waaw xam nga dañu jóge si mbas mi boobaak léegi yëngatuwuñu woon waaw ñu doon nattaat suñu bopp rek xam nga politicien moom bu toogee moom yàgg daa war a nattaat boppam dafa war a xoolaat boppam xoolaat est-ce que nit ñi ñu ngi continuer di ko topp est-ce que nit ñi ñu ngi continuer di ànd ak moom loolu moo taxoon ñu def assemblée générale bi alhamdulilah rabbil alamin ci biir kër gi lañ ko daan defee mais tey dañu gis ne xajuñu fo ñu génn ko si mbedd mi euh, kon yaakaar naa ne LDR Yeesal fa mu nekkoon démb tey la wàllu gunaay parce que LDRS tey dafa am ay nit yu bees yu nga xam nekk ñoon ci ñoom euh, jóge ci ay parti politique euh, ñëw fekk si ko suñu frère Yandé Gueye mu ngi nii mu ngi nii toog suñu frère Amadou Sow mun maa lim ñi nga xam ne ñëpp dañu bàyyi parti nekkoon ñëw ci LDRS ñëw ci biir benn Bokk Yaakaar pour ñu àndandoo pour mën a gagner élection locale yi ñu jëm parce que tamit euh, li ma gëm mooy mooy loolu moo tax ma ne militant yeesal yi militant yeesal yi ak fu ñu mën a nekk si biir réew mi ak commune bu ñu mën di nekk euh, ndigal li ñu joxe mooy nañu dem ñu jege ji responsable benn bokk yaakaar yi nañ dem ñu jege ji responsable APR yi nañu dem ñu jege ji responsable grande coalition majorité présidentielle pour tëgg ak ñoom ay liste liste yu nga xam ne dafay dëppoo ak jamono liste yu nga xam ne day jël en charge préoccupation ñii nga xam ne ñooy population yi pour que liste yooyu mën a gagné ñun loolu mooy li nga xam ne moom la ñu dénk suñuy suñuy militants ci 45 départements yi ci 550 communes yu nekk ci biir Sénégal parce que LDR Yeesal du rek Darou Moussi du rek département Kébémer LDR Yeesal ci 45 départements yi la nekk LDR Yeesal ci Pul et euh, dans les 500 et quelques communes du Sénégal LDR Yeesal est partout c'est une réalité politique ma ne la fii ci Darou Moussi nga xam ne am na ay leaders politiques yu fi nekk yore seen i parti politique ñoom ñëpp tàllal nañ leen suñu loxo ñu booloo euh, bokk ndey bokk baay fii ci dëkk bi booloo bokk ndey bokk baay ci biir département Kébémer ngir gañewaat commune daar Moussi tegaat ko ci loxo président Macky Sall ngir gañewaat département Kébémer tegaat ko ci loxo président Macky ñun suñu rôle mooy woote unité suñu rôle du xajaloo suñu rôle du du féewale parce que amatuñu personnellement lu ñuy prouver ci biir département Kébémer amatuñu lu ñuy prouve ci biir commune u Darou wax naa ko léegi mat na ñaar fukki at boobaak léegi candidat élection présidentielle ba mu fi àndal yaay gagné commune u list Moussi liste élection législative ba mu fi soutenir yaay gagné commune u Darou Moussi référendum bu amee bu ma nee wii lépp ci dëkk bi ne wii su ma nee non lépp ci dëkk bi ne non ba mat ñaar fukki kon amatuñu lu ñuy prouver fii ci biir commune u Darou Moussi moo tax ñun suñu rool dafa war a nekk rek gars yi bu kenn topp sa xol nañu booloo nañu bokk ndey nañu bokk baay nañu àndandoo taxaw liste bu nga xam ne ñëpp dañ ciy gis seen bopp liste boobu man a gagné dëkk bi ñu jël ko jëbbal ko coalition benn Bokk Yaakaar jëbbal ko président Macky Sall. événement yi fi xewoon euh, loolu loolu loolu jaar-jaar la rek mais man gëm naa ne loolu yëngalul benn Bokk Yaakaar euh, yëngalul militant benn Bokk Yaakaar te élection ñu jëm élection gox-goxaan la. dëkk bu nekk ña fa nekk leader yi ñooy xëccoo seen biir kon nag maire yi nekkoon Benno Bokk Yaakaar nekkoon grande majorité na ñu faram fàccee seen bilan parce que ñu ci bari si ñoom def nañ bilan yu baax a baax nañu faram fàccee seen bilan nañu faram fàccee seen i réalisation du ñàkk nag dëkk boo dem gis fa ko naan jógal ma toog waaye nag jógal ma toog taxul nga mën a toog parce que nit ñi ñooy joxe toogu bi te gëm naa ne coalition Benno Bokk Yaakaar ci biir Sénégal toogu yi fi yëpp toogu yooyu moo leen di jël man loolu laa gëm ci loolu la ñuy liggéey guddi ak bëccëg ci loolu la ñuy waxtaanee guddi ak bëccëg te loolu muy suñu tànk suba ak ngoon l'opposition bi nag ka mu jéem a regroupé wu ka mu jéem a booloo droit am la buñ ko mënee nañ ko def mais du tee ñun tamit ñu gën a regroupé wu gën a booloo gën a bokk ne gën bokk bay maintenant le peuple sénégalais va trancher et que comme ñun ñëpp ay démocrates lañu quand le peuple finira de trancher kenn ku nekk li peuple bi tranché nga nga ànd ci